journaliste bi ma daan bind bind yu bari mos naa cee bind benn jour wax ci li ma ci xalaat xam nga état mm-hmm. il faut ñu xam lan moo tax état am état euh, dañ ko xalaat ay at parce que adduna bi dañoo nekkoon foo xam ni ku ëpp doole rek yaa jiite te am na lépp am na razia am na yooyu yëpp am na ci histoire adduna ñu dem ba ci yàgg ñu ni nañu trouver société boo xam ni au moins société boobu dina jël ki am doole dox diggante ki am doole ak ki amul doole ñu xalaat ni état lañu war a teg am ñaari xalaatkat yoo xam ne ñu am solo lañu loolu dama koy wax rek pour ñu xam pour ñëw ci affaire sécurité bi Hobbes daan ni nit ñi dañoo dajale seen liberté jox ko benn nit pour nit boobu protégé leen am ko tudd Max Weber borom xaltukat bu mag Allemagne daan ni l'état est le monopole de la violence physique légitime maanaam cim réew état rek moo mën a jël doole ak teg ci nit ak sañ-sañ ak sañ-sañ waaw donc dafa am yoo xam ne état rek moo ko moom lempo état moo ko moom ngànnaay état moo ko moom diplomatie maanaam yónnee ambassadeur état moo ko moom ak kara sécurité ak lu ci luñ ci mën a jublu dafa warta am ci réew moo xam ni dañu jàpp ni état la parce que jël ay nit solo leen ay tenue ni ñii général lañ ñii commandant lañ ñii kii lañ man dama jàpp ni lu dangereux la sax man sama gis-gis honnêtement quel que soit idée bu ko mën a lal nag waaw ah, parce que da ni sëñ Mourtala da cee kontaan moo tax ñun nañ ko def ak yooyu loolu nag dafay interroger ci réew mi ak niñ ko yore ndax ay la yéwén nag du Modou Kara rek la mhm. parce ñi fi yor ay milices aussi bari nañu lii nag man pour man mhm. critique bi critique mhm. bi jariñul dara donc fii naan sëñ bi moo def wala sëñ bi def non pour man événement bu am importance la boo xam ni pour man am na ñetti yëf yu yuñ ci mën a def bu njëkk bi mooy il faut ñu xool ci réew mi kan moo mën a yor ngànnaay ak kan moo mën a sol tenue loolu c'est important milice yëpp ñu profitoo ci pour dindi leen bi ci topp il faut ñu xam xale yi réew mi il faut ñu piste leen parce que fii lu ne nga fiy dégg sàcc xale am na fi jaay xale am na fi xale mais maanaam xale yi réew mi il faut ñu jël ci responsabilité même bu fekkee da ngay créer un super ministère boo xam ne topp xale yi rek lay def il faut ñu def ko pour mën a pister xale yi beneen bi ci topp affaire drop affaire drop ci yenn groupe yi nga xam ne dañuy yëngu ci diine war nañ ko xool parce que képp kuy leer service fii su service secret yi xam ni drogue bari na ci lool te dara boobu li ci ëpp mooy faagaagal xelu nit ñi pour gën leen a mën a jariñoo waaw loolu amul kenn kuy liir fii service secret Sénégal ñett yi mat na loolu ñetti mbir yooyu daal pour man mën nañ ko profité ci événement bi pour saafara buuba bismillah yegsil ci waxtaan euh, journaliste bi ma daan bind bind yu bari mos naa cee bind benn jour wax ci li ma ci xalaat xam nga état mm-hmm. il faut ñu xam lan moo tax état am état euh, dañ ko xalaat ay at parce que àdduna bi dañoo nekkoon foo xam ni ku ëpp doole rek yaa jiite te am na lépp am na mm-hmm. razzia am na yooyu yëpp am na ci histoire u adduna lu dem ba ci yàgg ñu ni nañu trouver société boo xam ni au moins société boobu dina jël ki am doole dox diggante ki am doole ak ki amul doole ñu xalaat ni état lañ war a teg am ñaari xalaatkat yoo xam ni ñu am solo lañu loolu dama koy wax rek pour ñu xam pour ñëw ci affaire sécurité bi Hobbes daan ni nit ñi dañoo dajale mhm. seen liberté jox ko benn nit pour nit boobu protéger leen mhm. am ko tudd Max Weber borom xartukat bu mag Allemagne daan ni l'état est le monopole de la violence physique légitime maanaam cim réew état rek moo mën a jël doole ak teg ko ci nit ak sañ-sañ sañ-sañ waaw donc dafa am yoo xam ne état rek moo ko moom lempo état moo ko moom ngànnaay état moo ko moom diplomatie maanaam yónnee ambassadeur état moo ko moom ak kara sécurité ak lu ci luñ ci mën a jublu dafa warta am ci réew moo xam ni dañu jàpp ni état la parce que jël ay nit solo leen ay tenue ni ñii général lañ ñii commandant lañ ñii kii lañ man dama jàpp ni lu dangereux la sax man sama gis-gis honnêtement quel que soit idée bu ko mën a lal nag waaw ah, parce que da nga ni sëñ Moutala da cee kontaan moo tax ñun nañ ko def ak yooyu loolu nag dafay interroger ci réew mi ak niñ ko yore ndax ay la yéwén nag du Modou Kara rek la mhm. parce que ñi fi yor ay milices aussi bari nañ lii nag man pour man mhm. critique bi critique mhm. bi jariñul dara donc fii naan sëñ bi moo def wala sëñ bi def non pour man événement bu am importance la boo xam ni pour man am na ñetti yëf yuñ ci mën a def bu njëkk bi mooy il faut ñu xool ci réew mi kan moo mën a yor ngànnaay ak kan moo mën a sol tenu loolu c'est important mm-hmm. Mm-hmm. milice yëpp ñu profitoo ci pour dindi leen mm-hmm. bi ci topp il faut ñu xam xale yi réew mi il faut ñu piste leen parce que fii lu ne nga fi dégg sàcc xale am na fi jaay xale am na fi xale mais maanaam xale yi réew mi il faut ñu jël ci responsabilité même bu fekkee da ngay créer un super ministère boo xam ne topp xale yi rek lay def il faut ñu def ko pour mën a piste xale yi beneen bi ci topp affaire drogue affaire drogue ci yenn groupe yi nga xam ne dañuy yëngu ci diine mhm. war nañ ko xool mhm. parce que képp kuy leer service fii su service secret yi mhm. xam ni drogue bari na ci lool te dara boobu li ci ëpp mooy faagaagal xelu nit ñi pour gën leen a mën a jariñoo waaw loolu amul kenn kuy liir fii service secret Sénégal xamoo loolu ñetti mbir yooyu daal pour man mën nañ ko profité ci événement bi pour saafara buuba bismillah yegsil ci waxtaan. Euh, journaliste bi ma daan bind bind yu bari mos naa cee bind benn jour wax ci li ma ci xalaat xam nga état. Mhm. il faut ñu xam lan moo tax état am. état euh, dañ ko xalaat ay at parce que adduna bi dañoo nekkoon foo xam ni ku ëpp doole rek yaa jiite te am na lépp am na. razia am na yooyu yëpp am na ci histoire adduna. ñu dem ba ci yàgg ñu ni nañu trouver société boo xam ni. au moins société boobu dina jël ki am doole dox diggante ki am doole ak ki amul doole ñu xalaat ni état lañu war a teg am ñaari xalaatkat yoo xam ne ñu am solo lañ loolu dama koy wax rek pour ñu xam pour ñëw ci affaire sécurité bi pour Hobbes ni nit ñi dañoo dajale seen liberté jox ko benn nit pour nit boobu protéger leen mm. am ko tudd Max Weber borom xartubkat bu mag Allemagne daan ni l'état est le monopole de la violence physique légitime maanaam cim réew état rek moo mën a jël doole ak teg ko ci nit ak sañ-sañ ak sañ-sañ waaw donc dafa am yoo xam ne état rek moo ko moom lempo état moo ko moom ngànnaay état moo ko moom diplomatie maanaam yónnee ambassadeur état moo ko moom ak kara sécurité ak lu ci luñ ci mën a jublu dafa warta am ci réew moo xam ni dañu jàpp ni état la parce que jël ay nit solo leen ay tenue ni ñii général lañ ñii commandant lañ ñii kii lañ man dama jàpp ni lu dangereux la sax man sama gis-gis honnêtement quel que idée bu ko mën a lal nag ah, parce que da nga ni sëñ Mourtala da cee kontaan moo tax ñun nañ ko def ak yooyu loolu nag dafay interroger ci réew mi ak niñ ko yore ndax ay la yéwén nag du Modou Kara rek la mhm. parce que ñi fi yor ay milices aussi bari nañu lii nag man pour man mhm. critique bi critique bi mhm. jariñul dara toog fii naan sëñ bi moo def wala sëñ bi def non pour man événement bu am importance la boo xam ni pour man am na ñetti yëf yu yuñ ci mën a def bu njëkk bi mooy il faut ñu xool ci réew mi kan moo mën a yor ngànnaay ak kan moo mën a sol tenue loolu c'est important milice yëpp ñu profitoo ci pour dindi leen bi ci topp il faut ñu xam xale yi réew mi il faut ñu piste leen parce que fii lu ne nga fiy dégg sàcc xale am na fi jaay xale am na fi xale mais maanaam xale yi réew mi il faut ñu jël ci responsabilité même bu fekkee da ngay créer un super ministère boo xam ne topp xale yi rek lay def il faut ñu def ko pour mën a pister xale yi. beneen bi ci topp affaire drogue affaire drogue ci yenn groupe yi nga xam ne dañuy yëngu ci diine. war nañ ko xool parce que képp kuy leer service fii su service secret yi. xam ni drogue bari na ci lool. te dara boobu li ci ëpp mooy faagaagal xelu nit ñi. pour gën leen mën a jariñoo. waaw loolu amul kenn kuy liir fii service secret Sénégal. ñett yi mat na loolu ñetti mbir yooyu daal pour man. mën nañ ko profité ci événement bi pour saafara. buuba bismillah yegsil ci waxtaan